jërëjëf ba tey ñu ngi ci màggal gi fii ba tey kër soxna Momy Kébé moo Cheikh Abdoulaye Kébé mu Cheikh Abdoulaye Tage moom Serigne Saliou soxna si ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay. man ngaa présenté wu ni ñu wax sa tur. man Famata Diaw laa dëkk Tëngéej. ñu bëggoon xam sa taxawaay fii ci kër soxna Momy Kébé. man ba ma dalee ñëw Touba léegi léegi mu mat fukki at te jënn jëmm moo ma tax di ñëw Touba muy kenn tege di sama xarit bokk ak Cheikh Ablaye tege ndeyax baay yàlla dogal mu jël soxna suñ naan muumi kebe mu ne ma nañ dem nga siyaare ji tey ji xam kuy muumi kebe sama teraanga sama jabar ji nga xam ne teraangam dakkul si man ma ne ko yaa ma dugal Touba de xalaatoon nag bu ma duggee Touba nag du ma gaaw a génn ba ma ñëwee ba tey amalu ma naqari muumi fonk na kenn faale na kenn toppatoo na kenn tage bëgg na kenn tage boole na kenn ak càmmañam te boole ko ak càmmañam ay dóor ba boole waale suñu ñu di xaritam muy man ak Ndeye Marème Niang mi toog kenn bëgg na fu mu jëm jiital nu lu mu am jox si lu mu am yéene na si utul ab surga nag utul ku koy topp utul yi dag mu ñu nag fekk fi jabar ju baax ju ñuy naan Momy Kébé Momy nag bu bonee ñu laaj ko kanam Marème Dieng Sall yaayam jóge Kébé baayam waaye Momy suñu teraanga dara daqul bërka démb rek bi ñuy waaja a tabaski la ñu yónnee ay cuub yoo xam ne yi juróom fukki junni juróom benn fukki junni lay jàpp ay borode lu ne la ñuy defal mu di ko ñaanal nag yàlla naka yàlla bàyyi jëkkëram ji di Seex Ablaay Tage yàlla nañu sokkaloo ne asamaan ak suuf صل على الذي به تجيب واقبل به يا هذا